complot kan moo ko. ba ñu leen wéy mais complot kan moo ko gunge. kan moo ko gunge kan moo ko yóbbu kan moo sumi sumi tubayam nga nekk ko complot. xanaa man mi sax sama tubay mu ko sumee kenn complot mu asuma la ak moom. tu vois ce donc même c'est pas c'est pas anodin li nek di xew nii mm-hmm. di buzz ba journaux yi di ci jël ñëpp di ci jël. Mm-hmm. c'est pas anodin. man nit wax na ma c'est préparé c'est orchestré. wa mais mais mais kii euh, Gabriel et puis sax audio yi sa euh, audio yi audio yi am nañ ko mais amna audio yo xamna ñom duñ ko génnee. mais nañ ko génnee. amna audio yo xamna